mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki soppee yi ci yàlla ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, amaat nañu mbégte mu rëy ci jàkkaarloowaat ak yéen ci suñu jotaay yi ñuy am ci jamono bu nekk ngir comme ni ma koy waxee échanger rek seddoo yiw séddoo teraanga waaye tamit euh, bokk di xalaat euh, ci doxinu jamono ak doxinu sunu diine sunu pas-pas nga xam ne son borom subhanahu wa taala daf ñoo wàcc ci suuf ngir ñu jaamu ko waaye ngir ñu wéetal ko waaye ngir ñu topp ko waaye ngir ñu roy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, te loolu mënta am fekk xamuñu ñun ban taxawaay la ñu am ci àdduna ak ban taxawaay la am ëllëg ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu dee jaar nañ fan war a jaar mu mel ni nag euh, tabaarakallahu tey dañoo bëggoon waxtaan ak yéen ci euh, benn poñ bu am solo boo xamante ni Euh, interpellé na euh, jullit yu bëri interpellé na gaa yu baax yu bëri euh, jot naa ci tamit ay ay ay ay remarque ci ci ci ci ci jullit yu bëri ñu bëgg lu baax bëgg lu yiw manit alhamdulilahi rabbil alamin def naa ab jamono Sénégal donc li ñu wax tamit lu wér la te du ma ko waxee yéen ñëpp euh, di ngeen comprendre li may wax rawatina jigéen ñi waaw waaye nag du jigéen ñi kase la ñuy wax ndax jigéen ñi tamit dëgg la am na ñu ciy jëndal seen bopp mais li ci ëpp seen i wéyjur ñoo leen di jëndal li ñuy sol waaye li ci ëpp tamit seen i boroom kër ñoo leen di jëndal li ñuy sol kon nag euh, bokk na ci responsabilité ak kilifteef ak yitte ak pas-pas ak xam li la euh, sa rôle ci kaw suuf ci nga bàyyi xel say njaboot. ndax yàlla dafa wax ci alquran ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ah na ngeen na ngeen nangeen ngeen protéger seen bopp waaye na ngeen protéger seeni njaboot ci sawara waaw protéger seen njaboot ci sawara nag daf caa bokk njàngal leen yar leen waaye tamit xool lépp seeni accoutrement ak seeni façon seeni waxin seeni doxin fu ñuy jëm la ñuy lijjanti yépp dañ ko war a seet soo jàngee surtout Mariam di nga fekk foofu Sayyidatuna Maryam li muy baax baax li muy yiw yiw keroog ba ko fa bàyyam bu tedd ba fekkee euh, lu mu ko wax dane ko foo jëlee lii an naa la ki haza an ne la ki haza an ne la ki haza waaw lii ñam yu baax yi euh, teraanga yi xéewal yii foo ko jëlee sama doom loolu dafa am solo loolu dafa am solo waaw loolu dafa am solo ñu bëri nag loolu daw nañu responsabilité boobu waaye tamit eh, ndaw ñi ci boppam tamit ñoom ci seen boppam même bu affaire de wéjur ak yooyu war nañoo xam seeni responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le monde parce que ñoom it su ëllëgee yoomal xiyaama yàlla dina leen laaj lu tax ñu am xel am xalaat am gis-gis ba noppi di def li leen di neex euh, donc tey loolu lañ bëgg a waxtaane ak yéen mbokki jullit yi yéen i mbokki soppe yi ci yàlla ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu xoolaat suñu bopp surtout jigéen ñi ndax dafa am phénomène bu bees tàq bu doywaar boo xamante ni euh, soo ko xoolee da ngay xam ni piège daf ci nekk man toujours sama wax foofu lay jëm mooy yenn sew-sew yi yenn euh, yenn nuances yi yenn cabaxal yi nga xamante ni noonu lislaam yi dañ koy cabaxal ci biir diine cabaxal ko ci biir suñu société yi te nit ñi duñ ci yeew duñ ci bàyyi xel ñun foofu la ñuy xalaatee ak ñu bëri suñu paree def ko préparer ko diko ko ak yéen dafa melni nak so suñu xolé euh yéré yi suñu euh, njabot gi fi ni ci Sénégal na Sénégal ah seetlu ngeen ci euh, présence su li ñu wax mousseline mousseline wala bok ñun li ci ëpp Sénégal transparent la ñuy wax transparent mousseline tissu le bo xamanteni li ci ëpp légui dañ koy def ci loxoy yi di ko def ci dënn bi di ko def ci yenn cër yi léeg sax ci biir bi ñu def ko ci ah te li ci gën a dangereux mooy bu njëkk artistes yi rek nga daan gis ñu koy def ñoo nga xamante ni ñoo moom seen bopp loolu neex ñu def loolu lañ jàpp bopp waaye léegi da ngay gis ne même jullit yi nga xamante ni jigéen ñi jullit ñi nga xamante ni dañoo def choix wu muur seeni cër ils elles sont tombées dans ce piège dañ ci gis ñoo xamante ni dañuy muuru bu correct seen bopp waaye jël seen transparent def ci seen loxo def ko ci seen yenn cër yi ba am na seen parti yu bëri yoo xamante ni c'est des parties intimes yoo xamante ni yàlla xaraamal na mu génn keneen ku dul seen borom kër gis ko tey jii yooyu yëpp mu ngi ci biti te ñoom yëguñu ko sax pour ñoom lu xew la rek euh, da ngay man sax li ma njëkkoon a gis mooy loxo yi ñu jëloon daan ko kuppati fii ci kaw kuppati fii kuppati xaw ma fan euh, loolu laa fa njëkk a gis mais par la suite euh, nga gis ni transparent yi ci lañ dugg loolu c'est très dangereux loo xamante ni euh, vraiment du ma sañoon euh, ñu xalaataat bu baax euh, boroom xam-xam yi ak wéyjur yi ak usta asatisa yi ak xutbakat yi ñu yeewaat ci sunu xale yi parce que du du sax comme ni ko ñenn ji di njortee mais piège la piège la parce que dañ naan mode la lu bees la lu rafet la te c'est intimement lié ak yeneen mbir yépp parce que da ngay obligé wut xeesal de pour du du transparent bi muslim bi ci kaw mu rafet nga wala nga solo ba ah, nangam nangam euh, di apprécier ah, nga sa des yi euh, yow dugg ci spirale bo xew xew soko di nga di nga euh, def li tax wax ni piège la euh lolu du sama wax yéen yéen ñiy xool yéen ñi seetaan ñun ñiy xool ñun ñiy seetaan ñun ñi nekk ci dëkk bi mbokk ak ñëpp dëkk bi mais gis nañu ne euh, loolu lu am la premièrement deuxièmement suñu soppee di suñu sang di suñu référence ultime muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu depuis le si siècle ne jamono ngi ñëw nit ñi dinañu euh, solu yére yu cher ba noppi daal di futteeku

elle est bien habillé soo waxee mu ne sama lo sama li ma sol àgg na ba ci samay manche ah jot na jut gudd na fekk yow en réalité ci l'islam yow yow yaa ngi ne dumm tu es nu loolu yonent bi waxoon na kaasiyaat aariyaat yonent bi waxoon na ko ci xadis bu wér ne dina euh, am na ci ñoo xamante ni du yomal xiyaamee xeetu sax duñ ko sentir hadith bu doy war la mu ñu ne ko ñoo ñan la moy moy ñi nga xamanteni ni dañuy euh, solo ak yëre yu cher ba noppi daal di nuyu summeeku futteeku billaahi loolu yegg si na waaw euh, loolu nañ ko bàyyi xel boole nañ ci loolu loolu c'est spécifique pour ñëpp mais c'est c'est spécifique aussi pour ñii muuru dama ne ñii muuru ñoo ci gën a garaawle ñii muuru mais am na ay ay ay ay collants yu baax ay yu ñuy yu ñuy sol yoo xamante ni lu ñu mënti sol kenn du xam seen i cër léegi bàyyi nañ yooyu collant yi euh, kii lañ jël mousseline wala transparent comme ni ñu koy Sénégal mais am na lu gën a dangereux gën a grave loolu mooy lan mooy cheveux cheveux ñoom du ñuy wax naturel nii la ñu war a def nii naturelul de yow naturel euh, euh, ca ca fa mu jógee la naturel mais naturelul ci yow yow say cheveux mooy les cheveux africains crépus yi nga xamante ni peut-être doo ko toppatoo def ci yitte mu rafet te rafetaay googu kenn waru koo xam gis sa borom kër sa borom kër xaram na ci muy gis say say cheveux te te say say say cheveux te cheveux dafa bokk ci taaru jigéen hmm bokk ci taaru jigéen ah, ñu gëm leen il faut que ngeen cheveux naturels c'est pas naturel c'est pas naturel cheveux naturel mooy yi sax ci sa nga moom ko muy say cheveux nga xamante ni ku ko buddi direct génn ci yow waaye yow cheveux yoo xamante ni li ci ëpp moo ngi jugee Inde mu ngi jugee Inde te am na ay gëstu yu wóor yu ñu xamal ne cheveux naturels yooyu ñoo ngi koy jëlee ci ay sacrifice da ñëw ci euh, seen xërëm yooyu ñoom Krishna nag ñoom Shiva seen xërëm yooyu ñi nga xam ne dañoo jàpp ne yàlla la ci wetu yàlla nga xamante ni ñooy dëgg-dëgg bokkaalekatu yàlla yi ñoom ñooñu ñu nga ñëw ne ah man kat sama bopp day metti ñun la daggal sa kawar yi nga sa nga nga def ko offrande Shiva wala nga ne man kat damaa bëgg am jëkkër awma jëkkër ñun la daggal say nga def ko sarax xërëm jox ko Shiva ah wala nga ne man kat awma doom ñun la daggal say kawar jox ko kii wala nga ne ma damaa bëgg xaalis bu bari ñun la daggal say kawar nga jox ko Shiva hmm? wala nga jox ko Krishna. seen yàlla yooyu nga xamante ni ëpp na ñetti junni yàlla ndax ku jug rek wut sa yàlla bopp yàlla ci yàlla musal léegi gis nga kawar yooyu noonu moom la ñuy dajale ñoom ñoo nekk ca temple yooyu ak ca bërëb yooyu moom la ñuy jëlaat defaraat ko jox jaay ko industriel yi ñu jël ko toppatoowaat ko indiwaat ko Afrique diñu ko jaayee trois mille wala deux mille wala cinq mille francs waaw léegi kii lépp lu bon ay jinne ay xërëm ay wax yu yàlla gërëmul ay feebaram yépp tufli na ko ci kawaram gi saraxé ko yow nga ñew jël ko ci sénégal diko tak ci sa bop bi xam nga di doom jam xam nga ni da nga umu xam nga ni da nga yaqku xam nga ni da nga am ay problème xam nga ni ay jinn dina la dikkel xam nga ni di ngay daanu ta daano ko def lu nekk lu bon dina la dikkel pourquoi parce que yëf yi ci ay xërëm ci ay ñuy woote yàlla ca la jóge loolu dañ ko war a bàyyi xel mooy cheveux yi mais nu naturelé nu naturelé kenn ku ci nekk jëlal say kawar nga toppatoo ko euh, di raxas di defar ba mu mel na mu war a mel loolu mooy lii dëgg waaye li ñu topp nii ci àdduna bi su yàggee yaakaar naa musiba dina am te loolu yëpp dañ leen cee dugal nax leen ci euh, xam nga ni ab sénégalaise soo amee kawar guy àgg ba ci ndiggam xam nga ni du karo du kawaram nit ku nekk dafa am lu la yàlla may nit ku nekk dafa am lu la yàlla jox.

la reine d' Angleterre moo ko gën a nekk buur fopp parce que nguur dëgg mooy nga wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala nguur dëgg mooy nga jëfe ndigalu yàlla subhanahu wa ta'ala nguur dëgg mooy nga bàyyi tere yàlla subhanahu wa ta'ala kon sunu jigéen ñi jigéenu lislaam yi xeetu sayyidna Muhammad ñépp ay buur yu jigéen lañu ay ren lañu waaw ndax xam nañ loolu waaw yow bu dee buur nga xamoo sa bopp nga doye di doye di ba au second plan reléguer sa bopp ci euh, euh, ci stade bi ci pyramide euh, yiw ak mbaax ak teranga ak dignité ak personnalité ah ak ak taar ak yiw musiba te wax Muhammad Ali Amran, sur Ali Amran mu wax ci 110 kuntum خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يمدي نغن خمني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موي گنگي يوننت كون خيتام موي گنگي خيت تيري موي گنگي تيري قبلة موي گنگي قبلة اي صحابة موي گنگي صحابة اي نيكا توپ نيوي گنگي نيكا توپ اي سخنام نيوي گنگي سخنا اي دومام نيوي گنگي دوم اي ستم نيوي گنگي ست كرم موي گنگي كر دكم بيري مدينة موي گنگي دك dëkk bu mu juddoo di màkkatul mukarrama mooy gën gi dëkk bu nit di juddoo toppal yow mën nga ko àggale lépp lu baax rek ba ko yàlla joxe yonent bi salaa sallam salaa sallam ñun ci lañu ko joxale moom la imaamul buseyri radiallahu anhu wax ne lamma daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umami bi akrami rusli kunna akramal umami bi akrami rusli kunna akramal umami ñun li ñu am yépp si grâce à sayduna muhammad sallallahu alayhi wa billaahi maa ngi leen di wax waatal ci yàlla ne su nekkuloon rasulullah sallallahu alayhi wasallam am na xeet yu bari tey jii ñoom la ñuy gën a jéppi ci kaw suuf seen teraanga nag yàlla moo ko jaarale ci rasulullah waaye du ñoom kase teraanga àdduna yépp moom ci loxo rasulullah sallallahu alayhi kon yàlla nañu yàlla xiir ci ñu bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi bokk gi may wax du wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kase waaye mooy nga approprier wu ay valeur ay vertu ay njàngale ay pas-pas yu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamante ni moom la doon dundee moom la jàngal aw xeetam mooy lan yiw baax am teraanga am yërmande ci jaami yi ah, def ndànk di wax lu baax di def lu baax di ànd ak ñu baax di yeewu di xalaat di gis di di pare dama daan wax euh, ay ci jamonoy deux mille cinq deux mille six dama daan wax mbokki taalibe yi ci safinatu fuqara ilallah maanaam leen yéen ñëpp kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk muy góor muy jigéen da ngeen war a pare ñu ne ma luy pare man leen pare mooy bu dee yow góor nga mooy doo toogee ci jotaay du yonent bi dikkoon doo changer sa toogaay bu dee jigéen nga su yonent bi dikkoon doo dem wuti kol doo dem dindi ji sa perruque doo dem wuti sër boo doo dem nëbbi sa tubéy déedéet mooy yonent bi nee na tëll yére yu yiw yi nga sol ci nga koy recevoir bu dee góor nga tu es correct tu es tellement discipliné da nga yaru ci sa course ni nga toogee ba du Seydina Muhammad ñëwoon sallalahu alayhi wasallam da ngay jug rek ngir xorma magal ko waye do dem watu ji do dem changer sa yére do dem changer sa tubay do dem soppi dindi ay chaîne yo tak ak ay ay jaaro yo tak sa nopp ak ay lam yo tak sa loxok do def dara da ngay waxu rek jàkkaarloog moom ne ko assalaatu wassalamu alayka ya rasulallah man len fek agolen ci maqama bobu àggoo <coughs> àggoo leen ci daraja boobu mooy foo leen tollu ngeen pare pour recevoir Seydina Mouhamed yëf yi des na kon nag mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan euh, ñu ñun ñëpp ñu bokk xalaataat réfléchiraat indiwaat suñu xel defaat ndànk euh, wattu piège yi nga xamante ni ñoom lañu ñu Occident tëral moom lañu noonu lislaam yi tëralal ngir euh, pervertir suñu jigéen. ngir nax leen surtout jigéenu l'islam yi nga xamanteni ni tey suñu solee seen yooyu jàpp nañ ni correct nañu yiw nañu fekk futteeku nañ ba set wicc yàlla nañ ci yàlla musal ci barke sayduna muhammadin sallallahu alayhi wasallam sallam soo gisee ñu wax leen lii c'est parce que dafa am euh, euh, loo xamante ni incha allah waxtaan naa ci keroog sama benn jarbaat dinañ ci def waxtaan spécial ci semaine yii ñu ñu jublu mooy relation bi bi am ci waxyu ak intelligence moy xalaat réfléchir yeewu hein, éveil euh, euh, xam li xew nek au diapason de ce qui se passe dans le monde dinañ def waxtan spécial ci relation bi wahyu moy l'inspiration divine la révélation relation bi mu am ak l'intelligence al aql hein, al wa'y ñu ñu def ñu def corollaire yi jéem def xol parce que loolu suñ ko deful musibe dina am parce que am lo xamanteni côté wax la mais amna côté bo xamanteni yalla daf ci baye nit ñi ngir ñu ñomit ñu xalat seen digënté seen bop ak seen borom seen bop ak seeni moroomi jam donc euh, ñoo ngi ñaan yalla yalla na yalla barkel yëngatu yëpp yalla na yalla doli jam yalla na yalla doli sutura yalla na yalla doli teranga yalla na yalla doli xewal yalla na yalla gindi suñu njabot gi kon maa ngi leen di ñaan yéen ñëpp wéjur yi mbokk yi sœurs yi suñu sœurs yi yéen reine yi l'islam yi ah yéen princesse yi diine yi maa ngi leen di ñaan ah, ngeen ngeen dindi façon solo yooyu débarrassez-vous de ça ngeen muuru euh, sàmm seeni cër protégez-vous solu wax naa toujours ne ab jullit bu jigéen du waree solu gis nga li muy sol daf ko war a téye laaj ko ñetti question Ben bu ci question bu ci question bu ci négatif rek mu sànni yére bi bu mu ko sol mooy lan bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax jeex na ñett yi la c'est les trois choses bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax gis nga yii benn bu ci manqué ci yéreb jullit rek moomatu ko xaraam na ci moom mu sol ko bu mu gàtt ba ñuy gis ay cëram bu mu xat ba ñuy xam ay formam bu mu yaraax ba ñuy gis ay euh, euh, la la nga xamante ni kenn war koo gis ñett yi rek la jeex na jeex na bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax maa ngi leen di ñaan ngir dimbali ma ngir ngir jëmm yàlla ma Alaaji Maar Jóob wala Njóogu bu dee yéen kenn mu ngi ci suivre maa ngi leen di ñaan bind leen loolu bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax bu dee am na keneen kuy suivre tamit te mën koo bind na ma ko bindal en commentaire te na ngeen ko yaatal def leen ko na ko ñëpp jot yërëb jullit bu jigéen solub jullit bu jigéen ñetti condition la bu mu gàtt bu mu xat bu mu yaraax te tey jii bi bi tax ñuy waxtaane du gàtt gi bi tax ñuy waxtaane du du xat gi mais bi tax ñuy waxtaane mooy yaraax gi parce que yaraax bi fa la piège u seytaane bi nekk yi ci des ku ko gis dina xam ne lii moom lu bon la lu gàtt danaan ah lii kat moom amatul sax ku koy sol bu dee lu xat la ñu ne kii de moom yëf yaa ngi ne ñàpp ca moom waaye lu yaraax li mais foofu la seytaan nekk parce que da ngay jàpp ni lu normal la fekk c'est pas normal maa ngi leen di ñaan ngeen yaa yaatal ko ngeen tasaare ko piège seytaane la xam nga loolu mënoo ko jullee mënoo ko jullee wax naa leen ko waaw mëno mënoo ko jullee man jigéen ji ma gën a fonk mooy nga xamante ni euh, euh, nekk nañu julli jot da nga daal di jug taxaw julli waye ki nga xamanteni su julli jotee mu ne aal kol alma ki kii buma bu sama tubay alma lenen alma la ci dess alma la ci dess koku xam nga ni euh nekul ci le mo war a ndax non mu nekkee dé mën nako fa trouver te kenn ku ci nek da nga wara muru balan la mur nga sangu balan la sang ngay julli balan lay julle nga jox yàlla sa bop bala ñoo jël dila jibal yàlla yàlla ñu yàlla gindi bi jay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam su ko defee waxtan wa ngok dinañ ko def léegi ci français inshallah ngir mën koo tënkal suñu mbokk yi nga xamante ne dañuy suivre waaye balaa boobu ngeen may ma ñu santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax delloowaat yàlla njukkal ñaanalaat bu baax suñu kilifa yi ñoom ñépp yàlla na yàlla doole leen jàmm di rafetlu bu baax tamit xew-xew bi am barki démb bu mooy Serigne Mounirou Ndiéguène Al Khalifa recevoir na ca saalam Serigne Babacar si Mansour bu alxaaji Mansour bu maam Cheikh alxaaji Malik radiallahu anhum ajmain tabaarakallahu euh, euh, mu recevoir ko ñu waxtaan euh, mu ñëw jaale si ko sunu maam alxaaji abdul waaye mu ñëw jaale ko sunu bàyyi alxaaji alxaaji xalifa gay waaye tamit mu woon di feddali kóllëre mag ña bàyyam bu tedd ba alxaaji Mansour ak alxaaji Mouhamed Ndiéguène waaye magam ju tedd ja alxaaji rakam ju tedd ja alxaaji Abdoul Aziz radiallahu anhu Serigne Habib radiallahu anhu ba ci sunu maam Serigne Babacar Sy radiallahu anhu ba ci seen baay bu tedd ba Cheikh alxaaji Malick radiallahu anhu bi nga xamante ni moom moo ubbi kóllëre gi digganteem ak Cheikh alxaaji Ahmad Baro radiallahu anhu ñu dajee ca Thiès ah ca tabaarakallahu boobu te jamono boobu maam alxaaji Malick moo nga ca njaarnde di jàngale mu bay mbay ma baax mu laaj mu bëgg jëndal ay njabootam ay yére mooy ndimo tabaarakallaahu mu laajte ñu ne ko cees am na euh, euh, tissu yu baax te yomb loolu moo ko indi woon Thiès macha allah ba mu fa ñëwee mu daal di wàcc laajte ndax am na fii am na muqaddamu tijaan ñu ne ko am na ko fi nekk euh, muy cheikh alxaaji ahmad baru njëgéen keroog la ñu xamante ñu wóllërante di seqanti teraanga inshallah allah du ñàkk benn bis lañ jëf di jël page spéciale waxtaan ci digënté suñu ñaari mag ñooñu nga xamante ni comme ni ko sëñ Abdou waxee ci fatou sëñ Cheikh Tidiane si dañ né la famille jigéen ñoy premier allié bu ko Cheikh Al Hadj Malik dans la région de Thiès loolu sëñ Abdou wax ko monde bi yëpp seetaan nañ ko ci TFM mu magnifier la présence de Serigne Mounir wax ko ne ko jotaay bi ya ko mom waye fatlikou digënté mag ña. ak na mu rafetoon ci sillage boobu ak tànkoo yooyu ak dox boobu ci la sëriñ Bay tabaarakallaahu nekk di ko dox euh, sëriñ Muniru recevoir ko ci façon bu rafet euh, moom it tabaarakallaahu kontaan ca bég ca euh, la mu am ci lu baax yépp mooy njabootam la mu am ci lu baax muy teraanga la mu am ci lu baax muy ñaan ñu bokk ko ginnaaw ba imaam Alaaji Ahmad Baro jiitee timis sëriñ Bay joxe ay ñaanam waaye sànni foofu kara kàddu waxtaan waxtaan wu ama am solo ñoo ngi ñaan ñaan yàlla suñu ñaari xalifa yooyu yépp yàlla yàlla doolu leen jàmm yàlla doolu leen xéewal dool leen sutura dool leen teraanga loolu mooy lislaam mooy taaru lislaam mooy mooy doole lislaam comme ni ma ko doon waxee rek euh, maamul xaaj Maalik radiyallahu anhu ba mu ñëwee Thiès suñu maam la laaj ah, te loolu am na solo loolu mooy lan li ma bëgg a wax foofu du li mu laaj sunu maam déedéet li ma bëgg a wax mooy ab sëriñ moko wara war a fréquenté ab sëriñ ab sëriñ ko war a fréquenté waaw sëriñu jamono léegi borom xaalis ci lañ jëm borom kër yu rafet ci lañ jëm borom añ yu neex ci lañ jëm waye mag ñi ñom fa xam-xam nek rek fa l'islam nek rek fa julli jurom nek rek fa wazifa nek fa hadra juma nek loolu inshallah dinañ ci ñëw waxtan spécial yalla yàlla barke lépp bi jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wasallam yàlla yàlla barke lépp kon dañuy yemale foofu waxtaan wi incha allah pour fo jublu ci beneen partie bi en français pour waxtaan ak suñu mbokk yi rappeler leen taxawaay yi ak pas-pas yi ak dogu yi bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaw ma ma fàttali leen ne ki sunu ki ki kii nekk nii sunu euh, kanam nii mooy euh, le grand euh, muqaddam d'Abidjan Cheikh Souleymane Boiré moom moo moo moo moo ma moo ma moo ma filmé tabaarakallaahu comme Pape Ndongo tey dafa xaw a jàpp xaaj Racine Mouhamed Dia ñoom ñëpp dañoo nekk ci liggéey bi Euh, sunu le grand muqaddam d'Abidjan le grand solo solo moñu euh, filmé ñaan sallallahu alayhi <laughs> euh, donc ñogi ñew légui français bi bu de connecté wat len légui ñu français bi taala ngir ni ñu yaatalaat ko ba mbokk yëpp mën ko jot mën a xam euh, li nga xamante ni mooy euh, sunu farata sunu taxawaay sunu pas-pas ak euh, piège yi nga xamante ni ñoom ñu koy teg ci jamono te du ñu sàgganee ñàkk bopp ah dinañ ñu dugal ci foo xamante ni macha allah dinañ ko rëccu moo ngoog ñu bëgg nag vidéo bi gudd lool lool moo tax dañuy bëgg yam foofu incha allahu taala ngeen bañ a connecté wu ko duggaat leen léegi. ñu ñu nous en français ma tënk ko résumé ko nous, allahu taala lépp di yiw lépp di nous, lépp di xéewal euh, kon nous, le grand solo solo euh, euh, Cheikh Souleymane gars yi xam nañ ko bu baax di ngeen koy dégg li ci ci page WhatsApp bi wala page Facebook